Senvi dafa nekk association bi nga xamante ne ay jeunes pour dimbali ñi nga xamante ne ñu ngi ci gox ci biir Sénégal dañuy jël suñu dolé, suñu kàttan ak suñu xam pour dimbali leen ñooñu parce que seetul leen ne euh, am na benn disparité bu am entre Nyom ak ñi nekk Dakar donc moo tax ñu ñu jël suñuy dolé lépp pour euh, jàppale leen pour jéem a jàppale inégalité boobu noonu wàññeeku bu baax. waaw ñun euh, waa Sine Vie dañoo jàppane ne euh, jeune bu nekk am nga sa participation wala loo war a def ci sa doxalinu réew moo tax ñun ñu jël di dox tànk yooyu noonu pour gën a jàppale ñi nekk ci gox yee goxaat parce que am neen su ma su ma tënk Sine Vie ñetti. ponc la koy ki bi njëkk bi moy walu éducation bi Nelson Mandela da na wax né euh pour soqali aduna wala soqali réew nañu commencé par tabax xel yi te tabaxel xel boo koy def da ngeen commencé ci jàngale bi te ñi nekk ci gox yi goxati yi am nañu problème mu par exemple xale buy jug di dem jàng ji warna am matukaay war na fa fekk matuwaay ak jumtukaay yi nga xamante ne moo koy permettre mu jàng ci àll euh, mu jàng ci dans de très bonnes conditions bërëb bu mu war a nekk war na sell deuxième bi mooy ngàncax bi mooy environnement ñun dañoo jox neen am neen benn associé deuxième point bi mooy wàllu ngàncax bi am neen benn euh, partenaire associé muy simple citoyen acti simple simple action citoyenne bu Union dich jot nañoo def ay set setal ci ci biir réew mi troisième ponc bi moy euh, walu action sociale dimbalé ñi nga xamante ne seen loxo jotul sen ginnaw loolu tamit ñu ngi ciy yëngu waaw. depuis le début de de la pandémie moy basmi bu mu ñëw ba légui jot neen ay tanku ñëk neen def tanku sensibilisation dox tanku sensibilisation moy manam dem waxtaan ak nit ñi yée nit ñi né mbas bi amna fi.

ci naka dañoo confectionné ay pacte ay pacte ay pacte Korité Covid 2019 ñu am ay ndimbal ay denrées alimentaires ak ay gel saabu ak yooyu noonu pour si kii bi ñu dem jagle leen ko de même aussi dem leen ci cinq daara alxuraan yi nekk ci Dakar Ndiaye jàppale leen tamit comme ni ñuy jàppalee famille yooyu noonu léegi bi état bi ubbee frontières yi dem nañu pouponnière de Mbour ak pouponnière de Nanning ak suñu benn partenaire AGELS

Maxana dafa am ben école alimentaire bu fa nekk bi nga xamantene ben salle de classe mo fam am te abri provisoire moy manam maanaam euh, ñax la xalé yi tamit amuñu bu récréation jotté fu ñu mën a nekk espace détente légui ñun suñu projet moy defaraat euh, salle de classe bi créer leen abri provisoire bi jox leen ay livres pour sen bibliothèque

bi ci njëkk mooy cotisation membre yi membre yi chaque weer dañu am benn montant bi nga xamante ne moom verser trésorerie boobu mooy premier deuxième bi mooy collecte de fonds mooy ñaan ndimbal bi pour ñu mën a mu nekk xaalis wala don matériel tamit wa loolu bolon volonté bonnes volontés yooyu ñu jàppale beneen bi si topp mooy bu ñu projet comme par exemple projet bi dañuy def ay activités yi nga xamante ne dañuy jox xaalis pour ñu mën ko finan pour ñu mën ko dugalaat encore ci ci ci projet boobu noonu

ñooñu tamit dañuy dem defi ji porte à porte dem collecter seen xaalis ñu andil ñu ak ñu ñu ñu jot am ñu door pour mën a doxal suñu activité bu baax a baax.